arbitre bi sifflé waat na te diggante Lassane Ndeye trompeur Lassane Ndeye trompeur la Ndiaye añ ko Lassane Ndiaye xale yi seen combat bi yàgg na Lassane fan ko yegg Trompo fa mu jàpp baax na bàyyi waat na ko Lassane Ndiaye koy zongale dina ca génnam déet daan na ko daan na ko Lassane daan na ko waaw daana ko ko Lassane daan na trompeur zongale na ko bës na ko ba mu tëdd bës na ko ba mu tëdd Lassane Ndiaye na lu muy wax baaraam ba Lassane Ndiaye kaas Gora Sock lu muy def nii Gora Sock lu muy def nii